nit ñi yàlla leen moom bind leen ku nekk lam dogal ci moom rek ay am ci moom képp koo gis ci moom aw yiw yéene ko ko te yàlla tax te ñaanal ko yàlla saxal ko moom yow it loo mën a fàggu ci yiw nga jéem ko koo gis sax mu nekk ci safaan ci safaan bu ko mere mukk di ko ñaan yàlla waaye la nga koy ñaana yàlla ñaanale ko yàlla safaan bi mooy yàlla gindi ko jubal ko teg ci yoon ndax yàlla mën na lépp nit ki def na lu bon nga jëppi ko mere ko ba di ko ñaan yàlla ka moolu waroon ngaa teewlu ne boo koy ñaanal yàlla mu teg ko musiba yàlla man na ko wëlbati itam ba mu jub nekk ci lu baax te looloo gën a gaaw la nga a dégg ku ko def tudd ab président ci réew sàngam wala am njiitum nangam doon ku doy waar ko ban koo xam ne day yàq lislaam day def nangam mere ko ba tax mu di ko ñaan yàlla ta fekk mënoon naa ñàkk am na loo gënoon a gaaw ñaanal yàlla mu gindi ko te jubal bu ko yàlla gindee jubal ko rek mu mel noo xam ne mooy li ñëpp bëgg boobaa musibaam ñëpp mucc te loolu yàlla mën na ko ni mu ko mën a wéyale ca lee mu ne ba teg ko musiba lii la lii ko gën a yomb fuuf ci moom man na ko mu ne kon yow féetewoo kaw kenn gënoo kenn ndax xamoo sa mujj ëllëg nu mu demee teg ci itam ne nga bàyyi xel it ne suñ borom ci alquranul karim ci alquranul karim tëkku na lool ñi nga xamanteni bi ne dañuy dañuy rëy rëylu suñu borom daa wax ne ñi rëy rëylu dañuy dugg aj dañuy dugg sawara te buñ fay dugg toroxtaane lañ fay duggee boole ci alias billahi taala dañuy dugg sawara te buñ fay dugg toroxtaane lañ fay duggee boole ci yonente bi alei salatu salaam waxoon lu doy war daa waxoon ne képp koo xam ne lu toll ne fepp suufa lu ko gën a néew ci rëy mi ngi ci xolam du dugg àjjana loolu yonente bi alei salatu salaam waxoon képp ku fepp lu toll ne fepp suuf wala lu ko gën a néew ci rëy ku mu nekk ci sab xol doo dugg àjjana ak yeneen wax yu bare bare bare yu mu ci tegoon mu daal wax ne kon rëy itam mooy li nga xam ne moo alagoon iblis mu bon moomu moo ko alagoon niñ ko waxe woon léegi ndax yëg boppam ci ne moom cosaanam sawara la aadama kat ci suuf lañ ko bind kon maa ko gën a rëy wàccuwaay kon duma duma wacc ci kanamam di sujjotal di suufu ci kanamam ndax ma gëna for yalla alak ba tek ko lim ko tek niko non itam mu ne bàyyil xel lanen lo xamne lula lu la lo xamne bu ci sa xel démé rek nga wara mëna xamne a reey lu ci kaw kenn loola moy lan moy ne bayil xel fatlikul na yaw yaw nit sa ciosan lan la no jaar yow ba ñew fi gannaaw ba nga joggé ci Adam di wacc di jaar ci aw nit no def ba ñew fi mu ne ni nga def ba ñëw fii mooy aw toq nañ ma baal ci kàddu gi waaye noonu la ko waxee aw toq ma ni yu nga woon wu doyadi wu xeebu wu salte woo xam ne gannaaw bi nga demee ba ñëw àdduna di dund bëggoo mu takk la fenn fu ma takk nga fomp ko te moo ne sa cosaan loolu la woon ba nga ca jógee foo jaar jaara nga fi nga jaar ci biiru booy jur ba juddu ñëw adduna waaye bi nga ñëwee adduna rek nga tàmbali yoraat waneen melokaan mooy na nga jógee woon ci cosaan lu doyee du lu xeebu lu salte loo xam ne fu mu tax nga fomp ko diirum ngay dund ci adduna it foo toll yaa ngi ëmb ci sa biir ay sobe yoo xam ne boo koy génne doo jege sax nit ñi te fum la tax nga fomp ko te moom si giirug dund ba keroog ngay sàngoo suuf doo tàggoog loolu jenn jamono joo tàggoog moom si biir te nii ngay dunde te boo ci jógee fooy mujjaat mooy yàgg-yàgg da nga boo faatoo fooy mujj doonaan medd mu xesaw mu xeeñ mu sobewu mu salte moo xam ne fañ la denc nit du bëgg a yegg ci yow du la bëgg a jege buñ la dencee sax danga dem ba tollu ci ay bis foofu ku jege fañ la suul dana taf ba kanam te moo ne yaa tolloon daraja sàngam wàccoo sàngam ba nga nekk ci àdduna kon fii nga cosaanoo nii nga dunde sa parcours dund bépp fii nga mujj boo xamee na nag kon fii nga jaar fii nga fii nga cosaanoo fii nga jaar ak loo mën masa occupé ci àdduna ci ay tolluwaay ki daraja teewut nii nga mel ëmb ay sobe nit du ci mujj kuy dund ci kaw suuf yaa ngeeg moom ak post boo mën a occupé ci àdduna moom nit ñi daañ la def nii def la naa nga def nangam nangam waaye ti yaa ngi ak moom boo fi jógee it fi ñëpp mujj ngay mujj rek mujj doon medd mu sobe rek medd mu xeeñ moo xam ne buñ la suulee ba teg ca ay bis ku jege fañ la suul dana taf ay bakkanam buñ demee ba ba mu gën a ba yàgg ba yàgg ba yàgg fañ la suul buñ fa soxlawaatee suul keneen danañuy gas ba ci àgg ñuy gis ay yaxaaki gis ay jeexit yu bokkoon ci yow xam ne jëmmi diw sàngam moo mujj fii dem na ba seena lii rek moo des ci moom ay yàq nangam nangam rek des ci moom mu ne nag lii boo ko teewloo xam ne fii nga jóge fii ngay jaar fii ngay mujj war nga xam ne yow sutoo kenn tiimoo kenn yaa ngi ñëpp doo nga yem jàppeel sa bopp li nga doon boo bëggee noppaloo mu ne xam leen ne itam yéen ñëpp ci aadama ngeen jóge mooy seen baay ak loo leen sore sore ta aadama ci banab suuf rek la ko yàlla bindoon loolu lépp boo ko teewloo dana la xamal lan mooy si cosaan ak yow koo doon ba réy réyloog di yëkkati sa boppag ak lenn du la war sa digg sa moroomi jàmm mu teg ci ne baneen wéradi gi te mooy wéradi naw say jëf ak naw sa bopp mooy li ñu wooyee coolo aw mu ne loolu it wéradi la goo xam ne ñaare ñi gën di dal mooy ñiy jëf-jëf yu baax ñim gën a yomba dal ñaare mooy borom xam-xam jaamakatub yàlla def katum njekk ñooñu la gën a yomb dal aaw ñooñu moom ku ci mooy tuut musiba mi moo yàq si jëf jëpp ba yoma xiyam fekk dara borom xam bi ngir mu gis boppam ci xam daf koo yomb daf ko yomb lool daf koo yomb jaamukatub yàlla bi bari jaamu yàlla gis boppam ak naw boppam ci jaamu yàllam daf koo yomb mooy yi mu wax toujours rek mooy yi ngay dégg rek kuy jàng xasida wala alxuraan wala sikaratur yàlla ba mujj kom waxal ñaari ba tàmbali xonq li di la war ne la moom boo moytuwul ma def la lii wala ma def la laa a def la nang maanaam mooy ndax jàpp na ne fi ne li muy def tax na moom mën na dara daal loolu la jàpp fi jàpp na ne tax na mën na dara te mënul dara la mënul mu ne ak kii kii jëf jëfkatum njekk kii bari lu muy joxe wala bari lu dimbale nit ñi wala bari lu taxawu nit ñi ngir mu gis boppam ci ay jëfam da ko yomb maanaam kuy jëf daal bari ay jëf yu rafet rawati ci boo moytuwut jàngoroo ngi joo xam ne moo yàq say jëf te mooy gis sa bopp say jëf naw ko yëg na li nga def bari na wala am na solo mu ne li koy saafara nag mooy yow miy jëf te bari looy jëf nga xam ne jëf ji lu bari bari yow moomoo ko du say jëf ci dëgg-dëgg buñ ko xoolee du say jëf lu tax du say jëf mooy benn yow yàllaa la tàggat ngir nga jëf ko kon dëgg-dëgg du jëf kon ki yeyoo woon war a gis boppam ci yëf yi mooy yàlla mi la tàggat ba def loola ko ndax léeg la nga def lu baax loo xam ne yow sax dangay mujj di xalaat noo ko defee kon mooy ne kon jëf ji dëgg-dëgg jógewut ci yow yàlla moo la tàggat jëf-jëf ji jaar la ko ci sa loxo mu wàcc jëm ca jëm loolu rek la bu dee xam-xam bi noonu xam nga ne xam nga ne li nga xam xamaloo ko sa bopp waaye wërsëg la wala yàlla jox rek am na ku la gën a sonn ci xam-xam fopp te mënu koo xam xam nga ne sonn nga ci mbir ba tàyyi mu jafe laa xam xam ko jafe la mbir xam ko yomb la lool te defoo ci benn coona tam jafe ci ñu bari mooy xam-xam wërsëg la ku ci ne la la ci yàlla wërsëg la da nga ko am boo ci góorgóorloo loolu rek la jëf ju baax ji itam noonu rek la jëf ju baax ji moo xam da ngay julli mo xam da ngay sikar mo xam da ngay woor mo xam da ngay aj makka mo xam lu mën a doon yàlla la tàggat ba nga def ko waaye doonu na sa sa man-manu bopp rek la ko tax def alal ji waxi nopp moom moo ci gën a yomb ndax yow xam nga ne loo mën a def ba am dara nit def na lu ko ëpp fuuf te munta am genn wàll li nga am xam nga ne bu doon njàmbaar dong li nga am doo ko te loolu leer na ñi ëpp alal ci àdduna ñi ëpp alal ci àdduna man naa am yenn coono yaram yu metti yi mën naa am dañuñ ko ca dëgg la sax dañ na ñeneen i coono waaye ba ci coono yooyu daj sax buñ xooloon xam ne coona ya mayu leen la ñu am ndax coono yi ñu mën a jànkonte nit jànkonte nag yu ko ëpp fuuf te amul genn wàll la ñu kon moom yàlla la na xam mu jox leen ko bi mu leen ko joxee daf leen caa digal ñu séddoo koog ñi ci des loo ci yëkkati jox ko nit it yàlla def ci mbaaxam ko tàggatam nga def ko ndax léeg-léeg nga yéene nit te doo ko jox dara doo ko mas a man jox koo xam ne sa yéene woo ko kon moo yàllaa namm rek mu war a jaar sa loxo jàll ca kem jàll kon bu ci gis sa bopp ndax dañ laa tàggat rek ngeen ngay def beneen ba ca tege mooy bàyyil xel na sax nag ak li nga jëf lu mu rëy rëy rëy ba ci boo jàppoon ne sa sa man ak sa kattanal ko may itam ak say pexe wala sa xam sa farloo ko may jëf ji xamal na li muy bari bari man naa am yàlla nanguwu yàlla mën na ko bañ a nangu de ak li bari bari li mu bari bari yàlla mën na ko bañ a nangu ndax yow bi ngay nekk ci àddunay jëf dangay jëf rek waaye kenn ci ñun ku xam ci li ngay def lu yàlla nangoog lu mu nanguwul amut kenn xamu ko li ngay def moom da ngay def rek ba nga juddoo majeur ba léegi yaa ngi góorgóorlu xaj na waaye li ngay def ba léegi dara lu la ci leer na ndax yàlla nangu na ko amut te li ngay def lépp nag ak at yi mën a diire lu mu bari bari ak lu mu réeree bu ko yàlla nanguwul moog zéro ñooyam kon loolu beneen beneen buntu la boo xam ne bu mat a tiite la ndax xamoo ndax yàlla nangu na li nga defam jët te bu ko nanguwul rek amul njëriñ te mën naa am nanguwu dëgg la nag da nga yaakaar yàlla di ko ñaan boole ci mu nangul la ak di jéem a góorgóorlu ci luy tax ngam nangul la waaye ba léegi gar amoo benn garantie ci ne nangu na ko wala déet amoo ko kon waroo ko naw ndax bu ko yàlla nangu doonu lu ñu war a naw ndax amul njëriñ ëllëg amul njariñ mu teg ci ne teyit am na leneen loo war a bàyyi xel te mooy nga xam ne yow kat yàlla ak lim la defal amut loo mën a def ba jot ak loo mën a def rek keroog nga gën a gàtteñlu keroog nga gën a néew man-man keroog nga gën a ñàkk def dara ci boo ko xoolee par rapport ak li la war ci moom ak ak ci yow ndax li la war ci moom loo mën a def boo ko xaymaa xam ne lu gëna tuuti fepp suuf sax defoo ko ci la war sa digg ak moom ndax lim la wërale moom yàlla ci ay xéewal ak i may ak i man-man li nga def lépp bu ko calculer woon ak yow fayonte kook yow doo dese dara te dang nga ko desee loo ko war fay yow ndax la gën a néew ci lim la may rek boo ko ci dugalee jeexal tàkk cër yi nga jëfe moo la ko may mayoo ko sa bopp cër yi tàggat gi mu tàggatu ba mën a yëngatu mën a def defaloo ko sa yàlla la ko defal ak laneen lu mën a doon kon loolu lépp boo xoolee dajale ko li la jox mooy li la war ci sa digg moom mënoo ci matal dara ci àq mënoo ko mënoo ko loolu moo waral yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da wax naan ku yàlla xisaab dëgg-dëgg xisaab faaw mu duma la ndax mënoo matal sa digg moom te li nga defit la cay doon ay ayib ak i sikk sikk ak manque day bari te ling ko tooñ day bari itam sëñ bi teg ci ne